Salam alaikum. ngi leen di nuyu di len ziar di jiital ci new bi honorable mustafa Mbengue di suma wóllëre di nuyu le président des délégués de quartier monsieur Assane Fall di suma conseil spécial di nuyu délégation bi ma àndal yëpp Oumou Salam Kane di secrétaire élu au niveau du conseil départemental ñu ànd également ak euh, maître Momar Diop di suma directeur de cabinet ñu ànd ak Pape Fall ñu bokk ci délégation di nuyu kilifa yu baax yi ma fi fekk yëpp ku lim juum mais bu ma permettre de citer d'en citer quelques ndax mënu ñàkk Adja Aw di conseillère départementale tasi fii nekk it présidente conseil cadre de concertation des femmes élues du département moo fi teewee ñu daje ci war naa ko tudd nuyu ko mu ànd ak suñu conseillère bi di Konko di nuyu suñu jigéen bu baax bi soxna si Mbaye moom it lu muy wax lu baax ci man ci moom la nekk ñu nuyu également euh, Ramatoulaye Sarr di nuyu président Moussa Camara bu baax a baax dama lim ma fekk woon ci naa moom taxoon ma xaw di nuyu délégué de quartier yi fi teew yëpp bu ñu tuddee président Assane Fall mu yóbbaale leen ñuy nuyu monsieur le maire Ndiaga Lo nekk adjoint suñu frère monsieur le maire Adama Sarr di nuyu euh, présidente Adama Cissé teewal fii président Africa Cabinet di Moustapha Cissé donc madame Niang ñu ngi lay nuyu baax suñu session bii passé

keroog bañ ko souligné monsieur le maire Daouda Ndiaye bu yëmbal noor su boppam moom moo jóg parce que conseiller départemental moom su boppam moo jóg ne li jarul débat parce que xam naa Moustapha Cissé xam naa Africa Camena xam naa li mu mën a indi département wu Keur Massar donc li jarul débat dañ ko dañ ko voté ay tolof tolof yu ndaw am tax ko voté ñuy nuyu également Fall conseillère départementale di nuyu Ablaye Diouf dégg naa mu ngi fi moom it moom mooy président commission environnement di nuyu Mamadou Kébé fekkoon nañ ko fi sànq doyen Modou Tine nuyu dama bëgg mujjee si nguur ak commande bu ma tudd daal du ma gis ci ginnaaw. waa ngelaw li TV. ngelaw li TV waaw ñu ngi leen di nuyu. vraiment ku ñu tudd rek mu baal bi mais ñëpp a ngi ci xol yi. ah. Modou Tine. waaw. famille TV. ah Mbodj. waaw d'accord. mais. ñoom ñoo ñëpp nuyu. mais comme guddi na ñu nuyu Simbo ak Commando euh, sant leen encouragé leen bu baax a baax ñu yóbbaale seen équipe bi yëpp. Euh, dama wax keroog àjjuma ba le passé ma àjjuma la xaw ma ma fii mujj ma wax jeunes

la seule voie c'est l'éducation l'éducation éducation est de faire un homme informé et cultivé un homme d'action et de sacrifice c'est éducation l'éducation les deux bases de l'éducation sont la formation et l'enseignement formation et en enseignement mooy un homme d'action et de sacrifice un homme informé et cultivé te loolu la société du soxla loolu fu mu am société bu mu am day daal di dem ndax société dafay soxla action soxla sacrifice société dam dafa soxla des hommes cultivés et informés su ko defee ci loolu ngeen nekk moo tax ñu ngi leen ciy encouragé ci ngóor ak commando ak ñi en àndal de fàtte naa góora que vous fàtte naa la nuyu Je ko defee dañ encourager, di encouragé vous êtes des modèles fii ci Kër Massar ndax euh, nekk jeune du de jël sa responsabilité donc xam ngeen sa responsabilité de ko lii poète ba ne chaque jeunesse a sa responsabilité soit elle l'assume soit elle l'assume et l'avenir jugera vous êtes en train d'assumer vos responsabilités ici dans ce département et vous le faites fort manière parce que l'éducation comme nous ko sous amour su les asiatiques ils l'ont compris c'est éducation investir donc nous pouvons pas nous am xam-xam hein, c'est un pilier fondamental donc seule l'éducation est puissante donc nous devons encourager bu baax nous en tant que président du conseil dinañ leen accompagner lépp lu ñu mën ci jàppale leen incha allah dinañ ko def euh, parce que aussi l'éducation je parle sur le contrôle de monsieur le maire ak conseil yi fi teew yëpp éducation compétence transférée la donc nous avons la charge de développer l'éducation dans ce département donc bu ngeen ci nekkee di ci liggéey ñun dañ leen ci war accompagner et ça am na faire incha encore une fois kontaan nañu ci invitation bi.

ci la ñu nekk ñun ñu ñëw su ñu ngi lay nuyu li ngay wax ci ñun yow la nekk dañuy ne ku baax moo tax dañuy wax mbaaxu kenn euh, li nga témoignage yi ngay def yëpp ci yow la nekk ndax euh, ñun nit la ñu bëri def euh, lenn rek moom moom yitteel nañu muy xam-xam loolu moom dëgg la ci ñun ndax dañu gëm xam-xam te mooy li nga xam ne ñun mën nañu.